asalaamaaleykum mbokk yi ñu seetaan dal leen jàmm encore une fois de plus si Mindiss TV tey nag ñu ngi fii nga xamante ni mooy Ndaxo nga ñëw euh, gisante ak suñu naataan yi nga xam naataango yi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey fii ñi nga xamante liggéey si géej gi ñëw waxtaan ak ñoom ci li nga xamante nii mooy wàllum euh, immigration clandestine parce que gis nañ ne actuellement fi ñu toll nii si réew mi euh, jeunes yu bëri dañoo nekk ci di jël yoon bi nga xamante nii mooy yoonu géej gi pour dem extérieur pour liggéey wala leneen mais en tout cas nekk na phénomène boo xamante ne dafa présent actuellement ci réew mi te ñu bëri tamit ñu ngi ciy ñàkk seen bakkan moo tax te ñu ñëwoon fii pour waxtaan ak ñi nga xamante ne tey ñu ngi yëngu ci géej gi ñu waxtaan ak ñoom ñu pour ñu xamal ñu ñoom seen impression ak li nga xamante ni ñoom loolu lañ gis ci ci affaire bi nga xamante ne moo xew ak yan solution lañ ñu war a mën a apporter sëñ bi nuyu nañ maa ngi leen di fay présenté wu maa ngi tudd Malamine Sarr dëkk Félir waaw di liggéey ci Ndaxonga ah, di leen sant aussi di leen gërëm ci bon ñu seen teewaay waaw yal nañu yàlla defal jàmm rek defal ñu dégg ak topp waaw ba kanam incha allah. waa sëñ bi naka nga gisee événement yi nga xamante ni mooy xew fan yi ci réew mi ndaw yi nga xamante ni dañuy jël yoonu géej gi di ci ñàkk seen bakkan naka nga gisee loolu noonu. waaw comme ni ko ñëpp gisee rek dëkk bu naqari neexul aussi ñoom ñuy dem waaw ñoom ñuy dem buñ yaakaaroon ne buñ demee duñu àgg duñu dem. waaw kon dañu am yaakaar gu toll ni dañu war a àgg rek pour liggéey dimbali seeni waajur waaw man sama xalaatu bopp man loolu laa gisagum avant tout man laa gis. léegi yow euh, loolu nga gis que ne moom moo war a mën a tax euh, jeunes yi euh, di jël géej gi pour dem ci yeneen réew yi pour liggéey mais est-ce yaakaar nga ne loolu moom mooy solution jamono ji ñu nekk nii est-ce que dem ci loo xamante ni wóorul xamoo ndax di nga yegg wala di nga yegg nga yaakaar na loolu mooy solution. waaw comme ni ñu koy waxee xam nga xalaat moom. nit ku nekk sa xalaat ngay waxee te aussi nit mënoo passé niveau nit aussi comme mooy ni ma la ko waxee rek te ñoom seen wàllu bopp bu leen leeroon ne duñ àgg duñ dem te aussi dëkk bi neexul te mag ñi mag ñee koy ñoo koy faral di wax ne euh, kaw bu neexoon golo du wàcca kon Sénégal bu neexoon foo naa ne ndaw yi duñ bàyyi fii di jëgaani ut lu ñu am gaa am na ñu fi des am na ñoo xam ne jaralu leen ka man mi di waxee woon nii samay at bon weesoo ko mais man parewu ma loolu mi di waxee woon waaw mais nag dama jàpp ne nit ku nekk bon sa lalu matt nañ lay matte yaa xam waaw man loolu laa gis waaw vraiment te aussi bon comme nguur gi ni ñu koy waxee rek bon ça fait occasion pour ñu waxtaan ci loolu ñu jàppale jeunes yi comme ni ñu koy waxee ndax am na yoo xam ne bon bu ñu ko yombaloon peut-être mën nañoo ñàkk a jaar ci suuf wala ñàkk jaar ci géej gi ndax visa yi vraiment ni ñu koy waxee nii xam nga visa yi aussi bon comme bon man mooy li wax nii rek bon visa yi bu yomboon peut-être ne war ngaa jënd dara dem ci en règle mooy gën jaar ci ndox mi mais peut-être nga jaay sa kii rek xam moom pour am yaakaar ne da àgg ndaxte gaal fu muy daw fu ne saa su nekk noonu rek lay demee même ñu ne fii dina fii waaw dañuy am problème mi bon aussi des fois aussi bon doo am problème ndax yaakaar la su la leer boo tëmbee tey doo teer doo tëmb mais yaakaar ngay am hmm. waaw. léegi comme euh, yooyu nga wax ne des fois da ngeen am si géej yan façon problème ngeen di am des fois si géej waaw ngelaw rek ndax géej gi day tal dal nii yaa ngi xool géej gi gis nga ni mu def xam nga dal na nii mhm. tey mën ngaa dem ba biir géej mu yëngu ba mu leer fi mu toll nii du sab xereñ du sag moole du sa kattan yàlla rek moo la ciy génne à chaque fois aussi lool moo leen di arrivé ci géej gi mais du leneen. léegi yow ban appel ngay lancé lan lan lan nga am loo xam ne moom ngay wax ndaw réew mi pour ñaax leen si lool noonu. ndaw réew mi daal kenn ku ci nekk li nga gëm maa leen di ñaax kenn ku ci li nga gëm nga ci lu baax nag laa wax yàlla rek tax ndax bëgg a tekkee tax ñenn ñi def yenn yi man loolu laa gis sama xel nag laay waxee ñu jégal ma ci kàddu yi ndax du ma fi aussi loo xam ne peut-être comme rajo la wala télé bon ñu ne bon la Baye Fall wax man li may wax rek sama xel laay waxee lu ci rafet xam ne yàlla la rek lu ci dëngit xam ne boo xamoon matatik doomi aadama moo tollu noonu waaw mais man daal vraiment man li ma mën a wax jeunes yi mooy daal kenn ku nga gëm nga góorgóorlu ci waaw Sénégal nit tekki na fi Europe it dem na fa tekkiwul vraiment waaw kon nag kenn ku ci nekk rek vraiment nga góorgóorlu ci li nga nekk waaw yàlla bu weesoo jeunes yi euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu fi nekkal maanaam nguur gi ñoom lan nga leen di wax mooy li ma wax sànq rek nguur gi nañ góorgóorlu ci yombal mbir yi comme nga ñëw war a uti ñu yombal ko ba nga xam ne da nga naan ah fi ñu toll nii jaratul génn ñoom ñëpp nag ci kaw ba ci suuf kàddu yi lu ci rafet mooy li ma la ko waxee nii rek bon doomi aadama moo matul mais lu ju rafet aussi laa ciy jublu ñoom ñëpp ñu xam ne bon comme ñoo ñu nekkal ci kaw bu yàlla weesoo tax du yàlla du weesu na ma yàlla baal waaw ñu jàpp ci ndax am na loo xam ne tey wóor na la wóor yaan lii su ma ci dugalee sama loxo bon day rafet kon nañ ci dugal seen loxo bul xaar ñu wax la ndax kenn ku ci nekk tey sa doom te am na fu normal foo xam ne yaa ngi ko fa pour xam nga heure boo ñëwee ne ñu diw nangam ak nangam kon ñun aussi bon ñun aussi loolu lañ bëgg ci ñun te amaguñ ko te moo tax na ñuy lu métti ñu koy def mooy li ma la ni une semaine géej wala 10 jours ku la ne neexul ko neex la man mii di waxee nu moo laa amul lu ma deful ci géej barke Cheikh mais nag man instant yi may waxee nii parewu ma ko dew ma fenn maa ngi fii wallahi alazim dew ma fenn maa ngi fii transporté diggante Ndaxo nga Foundiougne Félir waaw de 2015 ba léegi maa ngi fi waaw lii sama wërsëg aussi bu baree bu néewee maa ngi koy jëriñu waaw mais kenn moom li ma la ko wax rek kenn ku ne nga gëm waaw nga góorgóorlu te yàlla rek tax foo dem man nga faa tekki ah foo nekkit mën nga faa tekki waaw waaw d'accord jërëjëf sëñ bi ñu ngi lay jaajëfal di la remercier tamit ci sa accessibilité merci beaucoup euh, ñoo ko déggandoo euh, euh, réew mi Sénégal yéen ñëpp ñoo ko déggandoo waa ji wax na li nga xamante ne moom mooy xalaatam si li nga xam ne moo xew ci réew mi fan yëpp moom nag aviyam mooy que ne nit ki képp nit ki fépp foo munti nekk boo gëmee sa bopp war nga fa mun a tedd war nga fa mun a tekki jarul ngay jël gaal gi di risquer sa bakkan ci loo xamante nii mën naa ne jaru ko parce que xamoo fan ngay xamoo nan la naka la ak fan la kon nag ndaw yi appel bi ñu leen di lancé mooy que ne da ngeen dolli góorgóorlu dolli gëm seen bopp te xam ne fi ngeen nekk ak yàlla lu mu bind si seen jë rek ala kuli aal dina leen fa fekk ñu ngi leen di jaajafal bu baax Mindiss TV la woon ak Rose merci beaucoup